ñi léegi fu ñu nekk nii dëgër nañ leen ñu stade ñu commencé di leen jox boo xam ne euh, bu ñoo waxee bu ñoo ooyee F100 moo nekk pour ñu yokk seen euh, diisaay yaram bi suñ leen joxee f boobu noonu tamit dañ ko dee euh, jox ak comme seen peese bi nuñ peese peese bi lañoo mool ñu xam lan ñaata si loolu noonu lañ koo jox soo noonu lañ leen fi dee toppatoo yi suñ demee léegi bañ gis ne léegi seen peese baa ngee yokku ndaxte bis bu nekk dañ leen dee peese dañ leen dee jox luñ dee wax plompinot am na beneen sax bu bu tuddaat bi bi pi 100 waaye boobu fi mu nekk nii amul bii moo am dañ leen dee jox bi ñu àndaal yi si kër bi ñu leen koo jox ñuy lekka léegi ñu jox leen uh, uh, appa boo xam ne dinañ dellu si waat fii pour ñu xoolaat leen ndax ñu ngee uh, seen disaay yaram baa ngee yokku xale yi gannaaw si gannaaw bu ñu leen bàyyee tam gannaaw bu ñu amee seen wàllu yaram eh, dinañ leen a bàyyi xel bu baax a baax jamono bu nekk di yaay yi nga xam ne ñoo di seeni yaay. We fii nag dañ fi dee am xale yu bari ci lopitaan bii nii muy lopitaani xale yi ah, ndax itamit ah, Euh, dañ leen dee bàyyi xel tamit euh, di seeti tamit seeni wérgu yaram ak euh, ci jaar-jaar yi nga xam ne moom lañ de jaar ngir ñu mun leen a aar ci feebar yi nii lopitaan bii nii nag ñu ngi ko taxawaloon ñeneenti at ci gannaaw. ci biir lopitaan bii nii euh, programme yu bari moom lañ fi dee def yu am solo yi tamit euh, ngir tamit euh, bàyyi xale yi xel faj leen yi tamit wala boo ko jox leen ñam yi nga xam ne moom la seen yaram yi soxla lu méngoo ak mbootaay àddina si ñoo ooyee World Health Organization ci diggante bi nag dañ leen dee bàyyi xel surtout nag ñi nga xam ne ñoom leen dee téye fii nii di leen bàyyi xel di leen seetlu pour musal leen naka si feebar yi nga xam ne moom mun na leen a isil looraange Kantulo me bina, kola se so be nyami. suma doom bi fu mu nekk nii tane na bu baax a baax a baax am na uutee nag ak bu ma ñëw fii nii ndax tamit bu ma doon ñëw fii nii mu ngi amoon nag jafe-jafe ci dënnaam bi ne ndax daf doon saxat bu baree baree bari waaye fu mu nekk nii man kontaan naa trop ci liggéey bi nga xam ne moom la docteur yi def ndax ñoom ah, dañoo kaf ak dina dinañu won seen kanam dinañ firi seen kanam ah, foy xale yi ba nga xam ne nag xale yi wér nañ balaa ñu ñoo bàyyi. ko sëñ ah, liñ dee faral a def mooy xale suñ leen isee fii si loppitaan yi dañ leen dee seet suñ waree jël péngu ñu jox leen péngu jox leen lekka jox leen meew ah, loolu naka daf leen dee dimbale bu baax ndax gisuloo fum mu nekk nii sax ma doom bi mu ngee fo ah, waaye tamit li ma jaaxal mooy ne mu ngi bàyyi eh, wàññi na lekkaam bi bu baax lu daan lekka daf ko bàyyi bu baax a baax a baax waaye mu ngee commencé di naan ndox comme nu mu waree. Eh, dolli ca it eh, xale yi nga xam ne jox nañu leen vitamine supplement di ay vitamine eh, lii tam am na seen yor am na solo ci seen wàllu wér gu seen màggaay ak li leen a aar ci ay jàngoro bu ko defee weeru jot nag dinañ ko jox nag xale yi ak ñi nga xam ñoo di ay waajur ci gox yi nga xam ne itam dañu sori capital yi. We immunize kids under five. fii nag dañ dee péngu xale yi nga xam ne ñu ngi am juróomi ak dem ci suuf te dinañ dee euh, nemmeeku ñi nga xam ne ñooy seen euh, yaay mbete jigéen ñu biir ñi noos bi nga xam ne moom ñaareel moo dee dimbale jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy matu ne waxtu bu nekk dañ daf dee dem di leen saytu seet umba bi mbéte bu fekkee ñu ngi matu fan lañ toll naka lañ mel mbéte mbaa amuñ benn jafe-jafe noos bi tamit boobu euh, liggéeyam la loo xam ne daf ko fi dee def fii ci lopitaan bi dina ay am ay garab yoo xam ne dinañ leen ko dee jox di vitamine A bi nag dinay ñëw si ñaari anam am na per boo xam ne per bu xonq la am na per boo xam ne bu buloo la per bu buloo bi nag dinañ ko joxale yi nga xam ne ñu ngi am juróom benn weer ba fukki weer per bu xonq bi boobu lañ dee jox xale yi nga xam ne dañ am benn at ba juróomi at te buñ leen ko joxee yoon bi balañ ko koo joxaat dina dem ba appi juróom-benni weer. vitamine C boobu tamit beneen garab la boo xam ne am na njëriñ ci e, maagaay xale ne fii dinañ leen ko dee jox te vitamine tamit dina dimbale xale bi bi nga xam ne e, ñaareel feebar yi nga xam ne ci kaw der gi la dee tegu dina leen aar foofu noonu te dina dimbale xale bi tamit gis-gisam gën a leer. vitamine E tamit dinañ leen ko dee jox ndaxte lu am solo la ci dundi nit ki donte sax lu ndaw la moo nekka waaye lu am njëriñ la si maagaay xale bi ak ci gis-gisinam bu fekkee xale bi mu ngi xool mbete di jànga loolu daal eh, vitamine E si seen lekka dina leen dimbale. lii nekk na loo xam ne nag loo xam ne baax a baax eh, campagne bi xam ne bii ñu ngi ko def. ngir yaatal nag eh, lépp loo xam ne moo di jëfu xorom si nga xam ne dañu ko iodise Eh, xoromi ayodin yi jaarale ko nag ci ñi nga xam ne ñoo di gas xorom ci biir réew mi fii. Gambia like many other countries. Gambia bokk na ci réew yi nga xam ne ñoom daal nangu nañ ab sart boo xam ne dina gis ne lépp loo xam ne xorom la dinañ ci yokk ab maanaam eh, garab bu ñoo ooyee iodine ne soo ko seetee ñaari at ci gannaaw di 2010 ah, def nañ ab gëstu yu wane ne téeméer bu nekka lu toll si ñaar fukki kër ak ñetta rek ñooy nekk kër yoo xam ne dañ dee lekk xorom boo xam ne am na iodine ne loolu eh, gis nañ ne buñ ci continuer noonu daal mun naa indi ay jafe-jafe boo ko seetee réewi Gambia nekkut réew boo xam ne dina defar xorom ne lu ci gën a bari mooy maanaam téeméer bu nekk soo ko xaymayee mu ngi mel ni eh, fukk ci eh, maanaam kopp suñ ko jëlee ci kopp sax ne fukka bi rek laa ndee liggéey ci biir réew mi kon mu ngi mel ni luñ dee lekk ci xorom lu ci gën a bari réewi Sénégal la dee bàyyeekoo. lu ci mën a nekk nag eh, agency bi am na ni ki sas yu am solo eh, ñi nga xam ñoo ci dugal seen loxo ñi nga xam ñooy jënd xorom di ko indi ci biir réew mi fii ak ñi nga xam ne ñoo di gas xorom ci biir réew mi fii ñi ñëpp eh, jox nañ leen sart yooyu ci biir réew mi pour nag xorom si nga xam ne moom la ñoo jëfoo mu am nag iodine nga xam ne moom la ñoo am njëriñ ci yarami doomu aadama. we will ensure that all salt imported into the Gambia. ñun pare nañ pour gis ne bépp xorom boo xam ne mu ngi jóge beneen réew di dugg ci biir Gambia ñu tes ko seet ndax am na li ñu ooyee iodine bii nii ndaxte euh, bu ñu demee ba gis ne ab xorom dugg na ci biir réew bi te amul euh, iodine ne lu ñuy def rek mooy dañuy delloo xorom boobu noonu ci dëkk bu mu jógee ne bu yàggut sax. ñu ngi demoon nemmeeku ji euh, ba Sénégal foofu nag ñu ngi fa laloon ab waxtaan seexa nag ak nguur gi seexa ak nit ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw euh, dundagu sela bu askan bi waxtaan nañ ci tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, mbuuri bunti nguur bi nga xam ne moom moo yore wàllum jula gi waxtaan nañ ak gouverneur bi nga xam ne moom moo nekk Kaolack ak nit ñi nga xam ne ñoom ñu ngi yëngatu ci wàllum xorom bi gannaaw bu ñu waxtaanee ak ñoom ñoom ñëpp feeñal nañ ne eh, li ko dooree léegi dinañ gis ne bépp xorom buy jógee biir Sénégal dugga ci biir Gambia dinañ ko eh, dinañ ko defaral ab kayit kayit boo wone ne xorom bii nii Sénégal lañ ko liggéeyee béréb eh, béréb nangam la jógee ci biir Sénégal. ne dinañ génne kayit boo xam ne dina wone loolu yëpp dinañ fexe tamit lu ñu ooye iodine ñu koy dal di toxal ci biir eh, xorom yi nii ndax ñu mun koo jaay ci marché eh, biir réew mi Gambia fii ngir gën a dëgëral nag bataaxel bi agency bi ñu ngi liggéey bu baax a baax ak ministry bu basic secondary education pour jàngal xale yi mun a jëriñu ci yu am solo lu aju nag ci xorom yi nga xam ne dañu am iodine rawatina nag euh, lii mun a yokk daal seeni xel agency fas nañu itam pour indi nutrition education di jàngale wàllu dund euh, ci school yi boole ko nag ci school curriculum pour loo xam ne nag lii euh, ngir koy gën ko yéwénal agency bi ñu ngay jàppale itam li nga xam ne moo di baby friendly hospital initiative nga xam ne nag ñoom daloon nañu ko ci atum 1993 ba gis ne nag dina jot nag basic health eh, practice yi nga xam ne moo di wér gu ci wàllu lopitaan yi ci nguur gi ak bànqaas yi lopitaan yu ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi yëpp Mari Barry di noos boo xam ne mu ngi ci APRC General Hospital nekk ca Farafenni kenn la ci ñi nga xam ne nag ñoo jiite mbir yi nga xam ne moo di xalaat bi am nañ luwa boo xam ne ñu ay jéego yoo xam ne dañ ko jël suñ diggante ak naana parce que naana ñooñu gën naa dimbale ñu jàngal ñu ba pare man bokkoon naa si ñooñu noonu ñu dem jàng ne euh, jéego yu ñoo indi fii nii ku nekk dafa war a xam jéego yi balekat yi sax xam nañ jéego yi euh, driver yi soo leen laajee dinañ la wax ne fii loppitaan boo xam ne la xarit xarit yàlla diggante xale yi ak euh,